ah sëñ Mansour kooku sama sëriñ la woon sama papa la woon sama xarit la woon ah, ami intime mu sama waajur bu góor la woon ñun nag ay taalibe cheikh nañ ñu yare nu si si si loolu eh, vraiment sëñ Mansour nekkoon sunu kilifa ndax sunu kër lépp lu fay dogal rek yàlla def na moom moo ko amoon sama waajur bu góor tamit ñu amoon relation yu particulière d'ailleurs sama papa ba mu gaañoo sax moom moo ñëw denc ko taxawu ko jullee ko si si euh, si si si jumaa bu jëppal bi waaye sama waajur yi boobu nu génnee àdduna sëñ Mansour dafa continuer am taxawaay di nu toppatoo di nu yar man nag particulièrement dama ko jege woon d'ailleurs secrétaire sax la ma daan wooye maa ngi fàttaliku su ma daan dem boobu maa ngi liggéey Tigo ah, su moom si daan ñëw Almadi mooy këram bi foofu sa avant may liggéey Tigo damay njëkk aw si moom liiral ko journaux yi dafal ko genre revue de presse ah, man bu ma ko daan defal revue de presse loolu revue de presse xew xewagul sax ma ne ko ah li wax neen journaux yi wax neen li wax neen li xam nga donc dañ daan toog di am ay moment de complicité yu am solo ah, dama naan nekk si néegam ni waxtaan ni nangam vraiment daal mu nekkoon kilifa bu am solo te boobu ma tollee aussi si war a am werd moom moo ma jox weer werd Tijaan donc nekkoon sama papa jàppale nu jàppale suñu famille yëpp moo tax si Malick euh, yàlla na euh, yërmande yàlla na leeru yàlla yokku si moom mm-hmm. ah borom daara ji ku am taxawaay la vraiment si sunu éducation man personnellement tey lépp lu ma doon rek joué na si un rôle majeur donc maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla bu baax si Malick